presse. ak El Hadj Ahmed Aïdara. wuure wa dem na kën waxi mag daj nañ dañ tàlli foog ñu gañee maa la wax li lée le pays au gañee rek mbaa maara day tàlli Lamine Sonko entraîneur national minimum ya nee daal il faut ñu def loolu tout jéem a dugal ca première minute ya nag bi ñuy doog a commencé waaw waaw Papis Demba Cissé mi capitaine équipe nationale ne ñun daal pare nañu pare nañu laa lay wax nii ba pare nag dañoo yàkkamti sax daje kon ak éléphant yii di ñayu Côte d'Ivoire la dëkk ba waaw tax ci rif fecc la ci dëkk bii ban fecc kon lañ ciy fecc tey jii ci ngoon Joseph Koto mi entraîneur équipe nationale bi ne ñun de danañu def kon suñ kéem lay katan ngir jéem a kon qualifié waaye nag loolee ngir mu ne il faut kon ñu ànd caag intelligence il faut ñu muus ca poma ca football ba ngir mën caakoon génn kalilu fa dëgg ci tribune yéene kaay ne supporters yi di public bi day jàpp leen ne mooy caabi wu match bi day ah maa la wax li lee man nag damaa dikk fii ngir encourager jàppale kon gayndee Sénégal yi supporter leen na ñëpp bootu kon ci ginnaaw équipe nationale bi suñu làmb ne gayndey day bootu nañu kon ci ginnaaw équipe nationale Tapha Tine ne lañ ci taq rëpp rek Balla Gaye 2 ne fulla fit ak jom rek booy naar ne match bii dee na leen leer na mooy seen match àdduna ak alaxira di ah maa la wax lée nees ne bu ko jaree sax nañ bàyyi seen bakkan ca terrain ba ñaw libération yéene kay ne match ba daal match yàlla la Sud Quotidien ne ko dëgg la doo au mur ma ne fi mu nekk ni le daal gagné rek baa nax saay sës nañu stade yéene kay ne askan wi daal la ñuy xaar mooy jaloore rek jaloore rek exploit jaloore wéy réew mi quotidien ne wennu askan ñaari but wenn mbégte un peuple deux buts une joie yéene kaa gi ne waaye am na benn sëriñ lu mu wax de ah ne waa Côte d'Ivoire kat rey nañu lu ci tolloog ñaar fukk ak ñaar ci ay golo i ay golo de singe maa la wax li le l'office yéene kaay ne ñoom kay dañ koo bañ ba bi ñuy ñëw dañoo indaale kon seen sëriñ ba stade yene kaay ne bii daal mooy dernière journée ba jongante gu mujj gaa ngi ni le gañee rek mbaa ndax saay gañee rek mbaa ndax saay Cameroun gañe mbaa ndax saay Maroc gañe mbaa ndax saay Sénégal gañe goo gee ni ki kon am na gan Hollande njiital France la directe info ne discours ba mu yëkkati ci assemblée nationale day ah François Hollande kay tojaange gi nga xam ne Nicolas Sarkozy defoon na ko ci Ndakaaru gi waa ji kon effacé na ko président France bi ci tribune yéene ne xam nga ñin li ñu boole mooy suñu ëllëg di avenir ba waaw waaw le populaire ne wàllum joxew visa ambassade France kay ah dañ ciy indi kon ay coppite di ay rupture de yeneen i coppite it ci wàllum partenariat ñeent daal dinañ koy xaatim ñaari dëkk ya bokk na ci juróom benn fukk ak benn ay milliards tribune waa olan day wax na ci jaay yi nga xam ne kon doon nañ ko jaay suñu maam yee di traite négrière wax na tamit moom gi nga xam ne moomoon nañ ko suñu réew mi di colonisation ba ba ci sax tirailleurs ya soldat yi nga xam ne kon ñoo doon jàppale nag France kon ca guerre ba doon sàkku seen xaalis kon ca kancaaroy gée ba loolee sax moo indi woon fanweer ak juróom ci ay soldaar africains ñàkkoon fa kon seen bakkan allahu akbar te ñoo ñee France kon lañ doon xeexal président France bi ne danaa Sénégal bépp archive boo xam ne rek kon France am na ko ñu indi ko exposé ko ko fii ci mémorialu caaroy gi ndeke musée Pape Sagna Mbaye ba mujj naa am njariñ kat ah. waa ana njariñu plan Orsec ba libération yéene ne waaye yow xaalis bi nga xam ne moom lañ doon dajale kon ca plan Orsec ga la jaar laaj woowee kat yayool na ñu daal di koy laaj parce ñi nga xam ne kon ñooy ngacc ndox mi di borom camion yi ba ni ñuy addoo ñi ngi laaj kon seenu xaalis te nee nañu nag bu ñu leen joxul seen xaalis koo gee danañ leen dégg yéene gi ne taw yu foor yi nga xam ne kon ñoo wàcc démb ca Mbàkke gee ah, am na ca ñoo xam ne ay boppam yenn ci ay xàll di ay yoon ndox ma nam fa mel maar day lii daal moo tax ba yenn chauffeur dawalkatu sareet ak ñeneen ak ñeneen ña teggi kon ay teggi yoo xam ne yu mittee mitti la ñuy dund lu mitti kay mooy waa mbuleem ah libération kaay na ab village la wu nekk daanaka ca biir mbuur gee waaye ñoom daal amuñu dara ba dara booloo jeex ndox mu sell baax amu fa wér gu yaram gu sell amu fa lekkool yu baax amu fa mbuleem daal maanaam amuñu dara ba dara booloo jeex la ñuy mitti luy mooy gox wa nga xam ne kon foofee la nekk ngir ñu dugg foo ñu génn fa rek mitti na kay mooy li dal dam ci seen njaay supiteer mi ak Matar Diop Diagne le quotidien yéen kaay ak le pays au quotidien ak le populaire ne àllarba ji di ñëw kon lañ leen di atte ci giraawaali googee ay giraawaali réew mi quotidien nee na moom lañ fi doon gis de ba ñi nga xam ne sax maanaam ñoo nekkoon ci gouvernement wu Abdoulaye Wade ba dañoo dem kon maanaam ba mujj gi ñu xàmmee leen jëf yooyee maanaam yolom jaño daal dem nañ sax ba wax fi maanaam doomu benn chanteur waykat woo xam ni ñoo ñee dañu koo mujj ëmbal i maa la wax li lée Macky Sall ne asalaamaaleykum yegg si na waaw benn directeur de cabinet wu ministre Macky Sall yii moom it tax na ca ripp de maar day taali ñu ngi xamle ne directeur de cabinet wu ministre Macky Sall mii gone gëm ëmbal deng ci juróom ñaari weer i ah te xale ba kat fukki at ak juróom-ñaar kese la waa ji ci boppam nag waxul lu leer même bu dee ma ngay làqatoo gone gu jigéen ga sax naan ko xoole lépp lu ca war dinaa ko def bàyyu xale bi jigéen bi nag commerçant bu riis la nee na bu waa ji gi ndiwul nit ñi mu tëj kaas yi gi ne waaye nag la ca gën a miti daal li gën a sokke nit ñi mooy directeur de cabinet wu ministre bi ministre am ba ca boppam ah mooy yëngu daal ci luy dimbali nit ñi ministre bi ci boppam moo baax social ministre bi ci boppam journaliste yi sax dañuy rafetlu kon jikkoom ndax yu baax yi nga xam ne kon mi ngi koy dimbalee askan wi le caay koy bi le ministre boobee cër wu am solo poste politique yu am solo yu baax la yor ci biir parti am tey koy ministre bi lee ministre bii ku ñu ràññee la ci mouvance présidentielle bi ñiy jàppale Macky maa la wax li ministre bii parti bi ñu ñu ràññee la ci yorenu réew mi di administration nationale <laughs> tey koy ministre bi leeg directeur de cabinet ba ku ko bëgg xam daal yomb na woo ma ci boo sàgganee ma mayaalee la xar i tribune yéene ne bërëb yi ñuy jaayee xar yaraax laa ilaha illa allah tay waay wax day rafet ma ne xar day ñàkk ren <laughs> alaaji daal balaa ngay tëj ah. waxal gaañi ñu woote dañ fay maye ay xar de bàyyi seex gàlloo ngi ñëw kon alaaji